cay corona jële saba xul du doy waar ba li libération bind mooy xale bi nga xam ne kon fukki at ak ñett dong la am waaw ñu tëjoon ko nag doon ko jëfandikoo mardi itali la ilaha illallah Balde tey ak Ndeye Soxna mi lay ah téye nañ leen caabi féete na leen ginnaaw de parce que xale bi nee mi da doon indi ay góor di ma forcé ñooñee di yegg sama mardi itali la ilaha bu paree daal di séddoo xaalis ba ak Lamine Balde